rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala maa ngi nuyu mboole mbokki jullit yi fi teew yépp di nuyu mbokki lislaam yépp di siyaar sëriñ di Mbakke ak njabootu Cheikh Abdoul Ahad Mbakke gépp di siyaar suñ mag yi nga xam ne moom lañ fi fekk yépp tàmbali ci Cheikh Abdoul Fatah Mbakke mi ak ñeneen ñi fi teew ñépp di leen siyaar ci bis bu tedd bii di bis bu màgg bii muy bis bii nga xam ne ñu ngi koy fàttaliku alxalifatul am di taifatul muride ki ki boobu ñetteelu yoonu murit muy Cheikh Abdoul Ahad Mbakke ñi ngi siyaare délégation bi nga xam ne ñoo jóge ci alxalifatul am li taifatil muridiya di sàkk ñu jotalal ñu suñu siyaar di ñaan yàlla dëgëral ko ba lim yéene la gil sëñ Tuubaa mu àggale ko di sant sëriñ Sidi Mbakke bu baax a baax a baax di fa yéene waxtaan nag waxta waxtaan woo xam ne wu gàtt lay doon ndax ñii ma jëkk a wax li am solo lépp wax nañ ko te ñoo bokk lenn lu ñuy wax muy sëriñ Abdul Fattah am ak sama rak Cheikh Mouhamadul Bachir ku ci ne li wax matale na te ñun ñëpp ñoo bokk genn garab gu ñuy biir ñoo bokk it fenn fu ñuy tànqe kon eh, wenn làmmiñ ñi lañ yor li ci waaye wax rek waxaale nga morom ñi ngi nuyu ñi fi teew ñépp ñi kilifay aada yi ñi ngi leen di nuyu di nuyu bokki taalibe yépp nag ci bis bii nga xam ne am nañ ci yaakaar lool ci teew fi ci ne danañ ci jële njariñ ngir bis bu sëñ Tuubaa bëggoon rek ku dib taalibe boo ci ñëwee xam nga ne mën nga caa jële dara sëñ Abdul Ahad nag ci sama tënk rekk li ma ci tënk ci lu gàtt ci lu ma sama seetlu bopp te ni ma ko seetloo la ko ñeneen ñu bari seetloo dëgg la jonjoo nañ nag lu baree baree baree baree ba nga xam ne bu ma mënoon a takk danaa ci mën a xam lu bari ndax bokk nañu jataay ba tey te léeg-léeg ma toog ak moom ñaari waxtu ñett te kenn duñu fekk te kenn duñu wettali bu ma nee xarum xel danaa ci mën a nettali lu bari ma waaye li nga xam ne tënk naa ko ci ne moom la doon doxale mooy li ma xam ci moom te ñépp xam ko ci moom mooy ku bëgg sëñ Tuubaa la li nga xam ne ndax dadaa wax ne la lanee ni kaneen daal lu mu baax baax soxlawuma ko loolu ci laa mu laa ko lanee ni kaneen xam naa ne lu mu lu lu ne waaye li ma am day lu baax te doy ma te doy te mënuma koo jeexal moo tax lanee ni kaneen ni lu ne rek mën naa ko <laughs> ku di ku di ku bëgguk taalibe la ak taalibe rek ko ñor ndax daana wax ne boo ko xasee am tam dëggu ayib leetoo dara kon ak taalib rekk ko ñor ku yëkkati waa kër sëñ Tuubaa te fonk leen la lu muy def lu ne lam cee dàkk mooy ngërëmul sëñ Tuubaa ngërëm la it ma ngi koy jaarale ñi bokkal sëñ Tuubaa jàpp na ne bu ñu bëggee rek sëñ bi mu ne ku ne maa ngi wut ci yow sëñ Tuubaa ci ci ñi ma bokkal sëñ Tuubaa noonu laa gisee woon muy doxale la ko ñeenteel mooy yoon wi ku ko sàmmoon la sàmm ko masamadi gi mu ne man kat fi ne dama naan ñog waxtu wu ne ndax ki ma fi teg damaa jàpp ne mi ngi mel ne gaynde yëkkati loxoom tiim ma ni ma jaaral fii bu ma jàddee rek xët bi dal loolu <laughs> tax waxtu wu ne dama naan ñog te te li ko li mu bëggoon ci yoon wi rek laay bëgg ma jaar ca sàmmal ko ko bañ caa yokk dara bañ caa wàññi dara loolu mën mooy sama liggéey ci yoon wi ndax ku ne xam na na mu ko bëggee woon rek na na la ko yàlla defale waaye responsabilité bi ma ci jox nag ginnaaw dafa yoru xëttiim ma kenn du mën a tax baa jàdd ko <laughs> bu ko defee nag euh, yàlla may na ko nag bi muy liggéey loolu lépp mu boole ci nag dëkku sëñ Tuubaa bi ñor ko fas yéene mu yokk ànd na ak otoom ba tàyyi mu wër corniche bi wëree corniche bi ne ah nii rek laa ko bëggee de ginnaaw dëkk bi sëñ Tuubaa bi mu koy def daa dem foo xam ne aw doj këlu ko ndox këlu ko bu la kenn fii la Tuubaa ndax daa dem ci frontière Jolof ak frontière Bawol ak fa euh, frontière Bawol ak frontière Saalum def fi dëkkam te ndox këlu ko aw doj këlu kon bu kenn xam fu muy yem loolu lépp nag bi mu koy liggéey mi ngi ko doon liggéeyee ci mbuum yi mooy wér jikko ndax nee na boo boo wéree jikko rek sab liggéey day yomb rafet man nag wér jikko rek laa mën a àndal waaye weex ak ñuul mënuma ci ànd ak kenn <laughs> loolu loolu ci moom laa ko toxale mu ne weex wér jikko rek laa mën a laa loolu laa mën a ànd ndax damay bëgg ku may àndal ma mën a konte ci yow te te boo wérut dama dul mën a compter ci yow bu ko defee nag melaw wér jikko ak melaw fulla moom la soloon bi muy liggéeyal sëñ Tuubaa looloo tax yaakaar ji sëñ Tuubaa amoon ci moom ca ba muy ñëw di gane yi àdduna mu ne kii ñëw de moom am naa ci moom yaakaar bu baax na ngeen ma ko ñaanal man man maa ne ko waaw bi sëñ bi wax ku mu waxoon ne ko mu ñaanal mu ñaanal comme mu ne ma sëñ Abdourahmane Lo sëñ Abdourahmane Lo la ko fekk mu ne ko ñaanal leen ma ko <laughs> loolu maa mu wax ma ko nee ma moom la woo ne ko ñaanalal la leen ma ko ndax am naa ci moom yaakaar kon nag noonu la ko yàlla may yàlla may na ko nag xikmatu xikmatu mooy lu mu la jàngal. boo ci jaaree lu ne danga xam nang nga cay na cay def dangay gëm yàlla ndax maslama di gi ci moom mu ne boo boo ñëwee ci àdduna ba juddu rek la la yàlla jàngal ni nga war a doxe ci àdduna ni la la war a jàng ne nag boo ko déggee da nga am gëm yàlla da nga xam ne it yàlla noppi na ndax bi nga juddoo boo indiwaalee bañ ak jaaxle nga indil say bokk boo juddoo mën a wax ak jaaxle ngay indil sa bopp dangaa war di raam buñ doxee tuuti ñu ne ma nga jàng dox buñ doxee tuuti ne mën naa dox léegi <laughs> waaye lu ci jiitu moroom ja rek say bokk jaaxle te dañ ko nëbb kuñ ko mën a nëbb it ndax yaakaar ne lii mën na laa gàllankoor mu ne bu fekkee waaye nag étape boo ci toll rek da gis yàlla may la kàttanu nga man loola bu ngeen door ndax jooy na lay njëkk a wax boo bu ñu doxee tuuti ñu ne ndax mi ngi nàmp buñ nee mi ngi nàmp na suuti ñu ndax mi ngi jàng dox mi ngi raam ba mu yàgg ñu ne ndax ma mën naa dox mi ngi dox di daanu ba mu yàgg ñu ne mën naa dox ba mu yàgg ñu ne mën naa wax <laughs> nee na loolu nag boo jàngee danga xam ne nit ki yàlla noppi na ci lépp lu jot ci yow bu jotee yàlla dana la ko defal kon nag loolu ku ko xam dangay ngay daal di rafet ci moom njort gis naa ci moom it. mu wàccoon adduna lool te toroxlu ci ndax lii sëñ sëñ Abdou di wax fekk naa fii ci kër sëñ Tuubaa gi nit di ñaan ñaanlu yor suuf mu wadd ci kawam fekk ma fa ma toog kooku daal koy faxas nii nekk mu ne ko si bàyyil suuf si suuf si ngeen di wadd muy wadd ci sama kaw ngeen di ko faxas balaa ëllëg ma dem ci biir suuf si ñu fab suuf teg ma ci sa man li ngeen di li ngeen di def gisuma ko kat ndax ci suuf si képp lañ jëm ñun ñëpp kon nag loolu doy na ab bind boo xam ne ku ko diglu mën nga ciy jariñoo yàlla na nu yàlla boole dimbali def ci ñun mi ne les ñu bokk ci ñi nga xam ne xaw alxawla fa yattabixoona ahsanahu ulaayika alladina hadahumullahu wa ulaayika huma ulul albaabi waaye sëñ siid yi yow it ñu ngi lay gërëm di lay ñaanal bu baax li nga bëgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa eh, bëgg koo liggéeyal bëgg koo jaare ci sëñ Abdul Ahad Mbàkke yi yàlla jàppale la ci ndax ne ko Cheikh Basirou sama rakk ji doon waxee léegi yàlla dimbali na la nag ci jikkoy Sëñ Abdou Lahad la yooyu ku woyof nga nuru nga ku amuk taalibi nga sëñ bi rek la ñor te loolu mooy li nga xam ne mooy caabi yi lu lu waay moom Sëñ Abdou mi damaa wax ne xam naa ne daal ndimbal moom ci loxol Sëñ Tuubaa ne ndax moom moo wax ne wala yow ma billaahu yuhin man shaahu ufiqadi kon tey ak ëllëg ndimbal ci loxol sëñ bi la ne waaye nag ku ko yaakaar képp lay dimbali ndim waaye nag boo amee taalibe ba dugg ci biir ma boo amee xasee amuk taalibe nag mm, am nga autorisation dugg ci magasin boo xasee dugg ci magasin bi it luy jaay lu ne ak ak lu ñuy woon lu ne gaaral lañ ko fa te boo demee da sañ a wékki te kenn du la wax lu tax nga wékki kon nag yàlla nu yàlla may taalibe bu rafet te def ñu taalibe bu sëñ Tuubaa wa kullu aamin wa antum bi xayrin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala